يا محمد رسول الله لا ذات لي من موم دوم لاي واي موي خاتم النبينا يون الله محمد وإمام المرسلين محمد رسول الله ستردو بنت غورني إلهي Muhammad ak yow yonent bi fadratun min rusli illa bansharat hawmaha bi kal anbiyaahu bilay jëmm jooje yow yaay Muhammadu rasulullah gattabaasu rundu waajal waajal te mooy yoon Muhammad gattabaaha kooko waajal waajal waaja bi kalu surwatas moo di ka te mooy yoon muhammad aliyaaw wa badaa wa wooyi aliyaaw sax liman sawa jooje du kenn ku muhammadu rasulullahi wa badalil wujudi min ka karimu yow naa ji nangu امين من كريم ابوي كرماو بلاي كيو بغ دو كن كدل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الوجود منك كريم آه. من كريم آه. ابوي كرماو نحسب تحسب الأولى بالهلا يا قنترندو أي غلدت أنو جوما جوزاو bilay jëmm jooje du kenn ku dul muhammadu rasulullah apasa wa wooy moom yonent bi ah. irsul wa faarin ah. anta fi yaatimatul asmaaw wa muayyan ah. mm, muayyana wa muayyana man moom dong yi sa turando yu waaj wa mooy yam yow yonent bi ka shamsu min ka mu diyun asorat anu laylatul xaraar muhammadu rasulullahi sa turando du kenn ku dul muhammadu rasulullahi wa mooy yam xayri xalqilaay yarna ka shamsu min ka mu diyun hmm. asorat anu laylatul xaraar ليلة المولد للذي موجر مقل يوجن انتبه ليلة المولد للذي موجر تنتل مملن انتبه ليلة المولد للذي موجر كن موي خاتم نبينا وإمام المرسلين <laughs> أولين وسيد الآخرين وإمام المرسلين ستر دوي خاتم نبينا لا كوكم أولين salaam tey may leen may leen ma xaalis jox ma sama saak bi amal ma sama saak bi may leen ma ko xaalis waay. imaamul mursaliin. alayhi salaatu wa salaam.